studio studio A de l'association des reporters authentiques de presse en ligne émission lam, euh, ce qu'il faut retenir mbëri ci seen i fief bu tay ñu ne Pikine ciow amna na bu subaa ñu ne Géejawaay coow ciow amna benen jour ñu ne la feneen ciow amna donc lolu ci mbëri la mais benn instant tamit mën naa ne foo dugg des fois nga fekk fa ay ciow des fois ay wax yo xam do comprendre côté promoteur yi des fois nga dégg ay bif wa feneen ak feneen ak feneen noonu mais man moom dama fété ci presse bi dama fété ci presse bi donc euh, mën naa di plaidel keneen mais saluer bien ordonné commence par soi-même menane ne ci presse bi la wara commencer parce que tamit ci presse bi la nek donc buñ la lay presse bi rek sama devoir man limay sentir sama devoir moy moy ma genn wax ci waaw wax na nak sama baat ca kaw a kaw a kaw man Seydina Omar Dia dootuma ndax presse bi dotuma xex ndax presse bi dotuma defante yene ndax presse bi mais nak tal sama sama caméra té sama micro jàkkaarloog sama caméra plaidel presse bi wax deug yalla lolu c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses donc ce euh, ma koy def je le fais avec plaisir euh, gars yi nañ delluwaat ci presse bien. Hein. L'amoudi, ji en dehors de làmb ji nañ delluwaat presse bi cër bi parce que presse dafa am solo ci réew mais su ma ñëwee rek ci presse bi c'est ci làmb ji surtout presse en ligne bi presse en ligne bi sax moo tax may wax Mais nous ci làmb lu am solo donc presse en ligne bi da leen war presse en ligne promoteur bi 3000 3000 promoteur bu ko promoteur primo la première chose qu'il faut retenir moi que euh, promoteur il a intérêt à revoir sa façon de faire promoteur nous def toute la presse bi am quelque chose comme ça il y a promoteur respecte la presse ils respectent presse presse mais am ci ne presse bi waaw euh, moins que rien et c'est ce ku koy nangu man l'accepte pas du ne du toléré du lu may aussi walé ko euh, presse bi des fois ci gens amna ci lu ñuy ak presse bi waaw public bi moom mu ko public bi moom waxalé mu ko des fois reporter dem jëli dara quelque chose comme ça ci ci commentaire nga des fois ñu quelque chose de donc public bi mu je reviens juste ci euh, promoteur yi presse seen génération la waxoon naa ko dama koy waxaat danañ wax waxaat du bari wax euh, sama gars yi génération ñu ngi dee ci ndox mi ndax lan découragé désespéré yaa ngi gis ku liggéey cotisé dajale benn cinq cent mille six cent mille dem fay jël yoonu gaal gi bari na ci ñoo xam ne dañoo dee ci ndox mi ba ci axlu làmb rek bëgguma tudd ay tur mais yàggul dara moins de deux semaines lañu ñu suñu benn boy bu nekkoon fi di bëri mënoon bëri loolu bopam boppam ñemewoon entraînement lool lool lool lool mais désespéré mo waralon mu jël xalissam xëpp ko ci gaali jël yoonu ndox mi dé ci ndox mi dañu jékki-jékki rek ñu tàggee ñu donc ñun suñu génération mu ngi désespéré yeen promoteur yeen lay waxal yeen ñi ngànk làmb yi ñi tëgg ay lamb ngeen gis ci seen génération ñu xamné dañu créer ay chaîne YouTube di ci taaba taaba di ci kocc koccal bëgg taxawal entreprise bëgg am lu lew lu leen lew parce que sàcc ñu fenuñu presse en ligne bi ay jàmbaar ñoo fi nekk classe Souleymane ñaar bi ñoo fi nekk borom suñu xalaat TV sa xalaat rafet na rakk ji ay jàmbaar ñoo fi nekk ay jàmbaar ñoom ngay gis ci presse en ligne bi dañuy créer seen chaîne YouTube di ci kocc koccal pour lan am lu leen lew taxawal entreprise mën di xëy di ci génne di ci joxe dépense donc yow promoteur bi nga la waay kooku bo tëgee lamb lamb ji jeex bo mënul new génné jox len ku 5000 5000 5000 5000 transport ne leen merci japp len ci rek yalla bax na lolu boko défé sa bop nga ko défal yaa encourager sa jeunesse yaa encourager say ndaw yi rew pour ñu continuer ci lancer bi ñu nekk mais organiser lamb di dàq presse bi di bloquer presse bi di doy dal presse bi yoy amul solo parce que bu dul dara ñu ma fa gis ci promoteur yépp ay ay ay responsable lañu. yaa may donc benn instant yow muy promoteur boo xëyee sa kër rek sol say daal jëm làmb ji nga xool say tout tànk say doom nga xool rek say doom yow njaboot gi la yàlla dénk ñi nga xam ne ci yow lañ génnee gane si àdduna nga xool leen yéene leen lu baax ci àdduna yéene leen ñu réussir ci àdduna boo demee làmb ji un jeune boo fa gis jàppal ni dafa juddu am ndey ak baay koo fa fekk jàppal ni sa njaboot la sa génération la yow promoteur bi yow laay waxal mujjee juddu gën a baax jàmbaar production Mansour Ba merci à toi Papa Sow merci Cheikh Ndiaye assurance merci Nous avons tout ci structure mais la production respecte y a presse bi il y a des choses à copier Il y a des choses à copier jàmbaar production des journée à copier. presse Aline Eric Favre Ling production Bombardier Tafatine des yëpp la Prince organisé face à face à au Club ba ñu presse bi couvrir ba paré ñu taxaw leen taxaw leen ne yi jël leen place ñoom ñëpp ñu tok ñun presse bi ñëpp ñu tok ñu servir servir ñu reer ñun ñëpp ñu reer paré mu transport jox ñu Prince mo def lool kon loolu marque de respect la amadja sama doom baay amadja structure bi fàtte naa nu mu saison passée oustad Ngalano Diouf lañ organiser ñoom ñoo organiser woon B52 B52 face à face à Mour numéro 2 Ronaldo Ronaldo ñu ñoo organiser ñoo organiser woon aussi Tidiane Faye numéro 2 face à Moustapha Gueye numéro 2 Fatina structure bi nu mu tudd Amadia moy collaborer ak ak promoteur bi Amadia la mos a gis lamb jeex man ma ñëw taxaw ne ko grand bi mu ne ma man ko transport pour presse bi Amadia décaissé 40000 francs 40 000 francs la décaissé. C'est combat du combat espoir. Il a décaissé 40 000 francs. Il n'y Connais que 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Doudara, mes gestes, il a fait un effet. Il a fait un effet. Donc, il a salué. Il a encouragé ses enfants. Peut-être que je suis un peu plus grand, sama grand, sama grand, mais je suis un peu plus grand. Mais à chaque fois, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus un grand frère reste un grand frère nit mën nga mag sa ndey mën nga mag mën nga mag yaay mën nga mag baay mën nañ ne kii yaay la ci moom fekkee yaa ko mag wala di bàppa ci moom fekkee yaa ko mag mais mag kenn mënu koo mag kon Ama Dia reste un grand frère mais geste boobu moom moo ko def saison passée saison passée moom moo ko def Badiane production pareil tëgg na làmbam bii passé bi mu tuddee drapeau Baara. drapeau bara grand combat bi euh, soq bu jaxaay ak garga bu bu Magadan, ñoo grand combat bi alaaj nar moom lo tuddee drapeau bi ba mu jéxé pareil, il dafa yëkkati 5000 5000 5000 000, 5 000, presse bi da may dégg donc lolu c'est une importance capitale mais yenn du ma ne sagaru promoteur du ma tooñ bëgguma tooñ mais ñenn ñi fi nekk taxawé position promoteur di persécuter presse bi la presse est persécutée la presse est marginalisée la presse est minimisée

presse bi dañuy njëkkante presse bi dañuy yàkkante ci seen biir boo taxawee ci leen di xeexal ñu wëlbatiku ci la xeex donc finalement man moom bàyyi naa man wax naa ko dernièrement nee naa leen léegi su ma ñëwatee bu làmb buñ ma dàqee damay gàddu sama saak ndànk dem ñibi wala ma dem uti ko feneen su ma dugatee ci lamb sax ñu ne ma a ah, ni bee damay gàddu sama bagage ndànk dem sama yoon dootuma taxaw di opposer résistance physiquement je le ferai plus jamais parce que presque bi seen wàll boobu pour nga gis ci ñaar ñu bëggante dafa jafe pour nga gis ci ñaar ñu bëggante yéenante lu baax dafa jafe dafa jafe nga gis ci ñaar ñu ànd te yàlla tax am na nag mais bariwul lu ma ne amul am na waaye bariwul li ëpp ci presse bi ku ci ne sa intérêt personnel moom ngay dox bari na ci nekk ci presse bi bëgguñu kenn am bëgguñu kenn avancé bu buñ sañoon dañuy yàqante ci suñu biir te loolu amul solo yooyu amul solo yooyu c'est pas intéressant gis naa fi de benn ànd bu sincère boo xam ne man maa xool dëggantaan mu wóor ma wóor yàlla ne ñaar ñii dañoo bëggante yéenante lu baax ne ci presse bi lu kii am yéene na ko moroomam lu kii am yéene na ko moroomam muy diggante Lamine sekk ak kii di euh, Babacar Diom ñaar ñii laa gis ci presse bi ñuy ànd ànd bu sincère bëggante yéenante lu baax lu Lamine am yéene na ko Babacar lu Babacar am yéene na ko Lamine donc beneen sens ñëpp bu ñu mënoon mel noonu moo gën ñëpp mënoon mel noonu affaire bi nekk marché bu tas mais bu ñu bëggante woon suñu biir yéenante lu baax ànd xàccandoo dóorandoo. ñun presse bi kenn du ñu mën a marginaliser kenn du ñu mën a tuutal mais nag ñu mën a ànd rek ñooy ànd ànd jarul forcé di waxaat juste man awma problème ak kenn ci presse bi awma jotu am awma kenn problème ci presse bi man nit moo may xool bañ ma mais du ma xool nit bañ ko mën nga toog teedal seedal nit du rafet mu foog ne da koo bëgg a jege da bëgg a xaritoog moom nee naa leen ko am yàlla du jaamu nit te man dama am yàlla donc du ma jaamu nit naa nit nag gëm naa nit respecté naa nit waaw gëm naa nit bëgg naa nit respecté naa nit mais ku am yàlla du jaamu nit lu ma gis ci nit lu baax su ma mënee toog jàkkaarloog sama caméra wax ko dama koy wax yow yaa ma mën a bañ waaye man mënuma laa bañ aw ma jot bi seen n'ai ni le temps ni l'envie émission coow ah. comme ni ma leen ko waxee euh, ba tey maa ngi ci presse bi surtout euh, presse en ligne bi ñun reporters yi dañu waroon dañu waroon a jubóo téggoo ci suñu biir ànd xàccandoo dóorandoo mais affaire bi dafa am ay contrainte dafa am ay kalante dafa am ay njëkkante dafa am ay yàqalante waaw comme ni ma leen koy waxee waxoon naa ko léegi dama ciy jaaraat gis naa fi benn ànd bu dëggu sincèrement ñaari nit ñoo xam ne bëggante nañ yéenante nañ bu baax muy Babacar Diome ak kii di Lamine Seck le reste mën naa ne yaay famille yàlla famille mbay famille moom wax dëgg yàlla bu ñu jubee war nañ juboo bu ñu juboo tamit bu ñu jaaxalante ñoom la seen biir yàlla famille mbay cee laa

pour ñu am sen liberté nit ñooñu ñooy wëlbatiku doo booloo doon benn say di la xeex te loolu amul solo ngay xexal nit mu lay xex combat bi mën naa combat bi amatul amatul amatul sens parce que combat boobu mëno ci am dam booy xexal nit mu lay xex da ngay yag ci combat bi di xaré di rey sa bop mais do ci am dam donc euh, benn instant wax ji wax ji moy mënuma ñàkk plaider presse bi parce que je fais partie de la presse la presse est persécutée la presse est marginalisée la presse est minimisée gis nañ fa exemple yu récent ci làmb instant bi bu ñu demee ba reporter bi kii téye micro bu demee ba léegi bu naree wax dara foog mu sóoraale parce que gars yi dañuy dem ba dañ lay napp finalement dañuy dem ba dañ lay napp te un reporter kuy téye micro waroo ragal sama gars yi reporter ger day am ñu yónni reporter envoyé spécial mu dem ci guerre ba di bind ay article guerre civile yooyu lu mu mënti doon nga gis un reporter journaliste ay nit di reyante ay bal di tàkk tëll tëll tëll ñuy def seen liggéey kon nga nekk ci làmb yow reporter bi yow laay waxal nga nekk ci làmb gars yi napp la guuf sa maañ ba finalement loo nar a wax ngay sóoraale loo nar a def ngay sóoraale ça veut dire que doo mës def sa liggéey correctement parce que man gis naa fi journaliste bu dem jëli coach coach bi wax ci benn mbërëm reporter bi publier loolu mbër bi woo ko ne ko supprimer parce que ci ci euh, miniature bi photo mbër mi la def croix ko def ci benn croix publier vidéo bi mbër mi woo ko am lu mu ko tegal am nu mu waxee ak moom ne ko waa ji supprimer bi ci mujj keroog yàggul dara Modou Touré ñu naan ko jëf jël TV am na vidéo bu mu publier benn sëriñ bu waxoon ci combat ne combat bi diw mooy daan combat bi jour ji ka waxoon mooy daan kookoo daanu mu piblier VAR sëriñ bi boko ko ne ko euh, supprimer mu woo ne ma est-ce que ma ne ko non non supprimer ne supprime pas du ñom ñolay wax loy def wala loolu dul def euh, damay waxaat ah, man neena naa man awma jotu bañ nit muy ci presse bi muy fenen muy ci presse bi muy fenen awma jotu bañ nit man nit moom mooy xool bañ ma nit moom mooy xool contre ma ga nit xol ma tamit bëgg ma ci nit xol ma am ci man cofeel waaw lépp sante yalla lu am ñu sante yalla mais je vais vous dire une chose mën nga nekk ci presse bi di ma xoolee bëtu di ma siis wala du ma ko lijjanti su ma gisee ci yow lu baax war koo wax dama koy wax su ma gisee tamit ñu teg la tamit lu jaaduwul tamit su ma ko waree wax dama koy wax sama gars yi yaa ngi ak moom comme Fadamtu l'exemple de Fadamtu yàggul dara combat Ama Baldé face à Modou Lo euh, reporter kuy wax ci presse reporter yoo journaliste yoo journaliste mooy waaw am ay diplôme

mu jural la ay jafe-jafe là ça devient un problème fadamtu wax na fi ne combat bi danañ gis ñaari promoteur yu taxaw ci côté Modou ñaari promoteur yu taxaw ci côté Ama Baldé loolu juróon fi coow ñu classe ko ci benn instant et pourtant li mu waxoon li waxoon gis nañ ko li waxoon gis nañ ko ñaari promoteur ci côté euh, Ama Baldé ñaari promoteur ci côté Ama Baldé mais ñaari promoteur gis nañu Ibrahima Diop Kajoor production ci côté Ama Baldé gis nañu Pape Sar Sarène Sarène production ci côté Ama Baldé loolu ñaari ñaari promoteur la te Fadam lolu rek la wax ñaari promoteur ci côté Ama Baldé gis nañu Ibrahima Diop Kajoor production ci côté Ama Baldé gis nañu gis nañu euh, kii euh, comment il s'appelle encore euh, Pape sar Sarène Sarène Sarène production ci côté Ama Baldé donc limu mu amna

Iboulaye production mi ngi donc ñaari promoteur côté Modou Lo gis nañ Iboulaye ci côté Modou Lo gis nañ Jamaïcain ci côté Modou Lo ñaari promoteur ci côté Ama Baldé gis nañu Pape Sarr Sarène production ci côté ci côté ci côté Ama Baldé gis nañu aussi euh, Ibrahima Diop Kajoor production ci côté Ama Baldé c'est tout te Fadam loolu rek la waxoon waxul dara leneen lii la wax nekkoon seen émission coowu làmb maa ngi toll Fadam Fadam tout ne laa ne li mu wax un scoop la joxe exclusivité ne jouru combat bi Ama balde ñaari promoteur ñu ngi koy jàppale Modou Lo ñaari promoteur ñu ngi koy jàppale loolu jarul woon mooy jur coow te dégg na ci lu ne y a eu aussi un gars comme Abou Ndour y eu un gars comme Abou Ndour bu joxe information comme quoi que ne Ama balde état de santé am demewul noonu mën naa am mu dugal certificat médical dégg na ci lu ne dégg na ci wax ju ne et pourtant après combat bi après combat Modou Lo Ama Baldé ñoo ngi dégg côté quand wu Ama Baldé ñuy wax ay waxu faju ama na faju mais xanaa kay ku wérul moom mooy faju mais ku wér du faju donc information bi Abou Ndour joxe information bu avéré la mais c'est quoi le problème en fait lan mooy le problème dernier bi moy le cas Modou Anta bobu sax mom bobu bobu sax mo gën mo moo man moma ma moma a déranger parce que Modou Anta open euh, dafa dem euh, point de presse je précise hein, dañu ne point de presse waaw point de presse open presse c'est pour la presse waaw point de presse du point du du du point de ngéwal du du point de chorégraphie de points de répétition de points de contact de point de autre chose point de presse c'est pour la presse le lutteur le concerné face à la presse question réponse les reporters posent des questions le concerné répond aux questions tu poses une question il répond tu poses une question il peut dire je réponds pas tu poses une question il peut dire que je ne veux pas répondre à cette question reporter B, face à son interlocuteur moi, il y a un reporter qui pose ses questions ki ngay laaj ñetti tontu la la amel nga laaj mu tontu la léegi nga laaj mu ne la tontu wala nga mu ne la la ci tontu c'est tout mais mu doon pose une question question bi mu posé ci lamb la débordé wul génnul lamb benn yoon posé wul question jëmale ko ci NBA posé wul question jëmale ko ci football Posez-vous wul question jëmale ko ci cinéma question bi mu posé ci lamb la ko L'acte de guerre numéro 2 gis nañu Siteu képp ku muy bëreel daf lay noyer, daf lay dominer ci côté supporter mobiliser le bari mais question boobu la ci dérangeant lan déranger la question lan jar lan mo jar di wax di finalement Modou Anta ne euphorie il n'a rien fait foule dara il a posé il s'est contenté de poser une question une question pertinente une question bo xamné sax dafa doon jappalé mbeur mi parce que mbeur mi dafa manqué côté mobilisation à chaque fois buy bëree dañuy gis né mobilisation du démé non kon kooku il pouvait juste répondre mobilisation bi bayina ko ci loxo diw ak loxo diw ak loxo diw wala a ah, yéen autorité géejawaay dégg ngén dé mu ante question bi mu posé ñenn si te ku muy bëreel daf lay dominer ci mobilisation lol nak waxul ak man yéen lay waxal parce que yéen yéen ma meuna a ci ay bloc ticket yéen ma meuna a jëndal ay bloc ticket jox ko xalé yi ñu déplacé wu dem fé cet stade bi mais c'était facile à répondre c'était facile mais mu doon il a il a failli il a failli bastonné parce que supporters yi ñom ni mbeur ni mbër mi di doxalé loolu lañu loolu lañu ñu copier quand mbër mi ni mu doxalee supporters non la doxalé doxalee il n'a rien fait question bi mu poser débordé wul ben yoon génnul ci lamb ben yoon encore une fois dama koy la presse est marginalisée la presse est persécutée la presse est est est, est minimisée jusqu'où jusqu'où ça va aller Modou Anta avant Modou Anta après Modou Anta yaay Modou Mbaye numéro 1 Modou Mbaye euh, bu Bantamba foofu tamit gis nañu la même chose la presse bi daal dañ leen persécuté au nom de quoi et jusqu'où ça peut aller ba fan la mën dem parce que man si ça continue comme ça du ma buñ xey un jour ñu né diw de sifay nañ ko diw de duma nañ ko bay leen yooyu c'est pas intéressant presse bi li ñuy liggéey ci lamb dafa am solo surtout presse en ligne bi information yu n'est soxla nekkal Dakar nekkal ci région yi nekkal ci sous région bi aux États-Unis en France euh, en Allemagne en Italie ont nekk en ligne bi des légui rakkin tak ñu jox la information kon il mérite du respect encore une fois sama gars il mérite du respect jël bi encore une fois un reporter waxal euh, pression bi bari na ah mais pression bi bari bari bari bari bari bari ba ngeen bari bari bari bari parce que pour la prochaine fois boy poser question nga xalaat ni ah kat ah quelque chose de temps nga ragal micro bo démé bay ragal poser question bu micro parce que war ko poser une question nga ragal ko poser question a que toi, reporter gars le respect avant tout le respect après tout le respect est réciproque les gars il faut il faut se respecter d'abord imposer qu'on respect respecte après le respect est réciproque il faut savoir se respecter avant et demander qu'on te respecte après donc face à ton interlocuteur euh, face à ton interlocuteur tu lui dois toujours du respect face à un champion tu lui dois du respect moi poser une question pourquoi il bu koy waroo poser une question boo xam ne dafay dugg ci vie privée vie privée nit ki ku ne da nga am vie privée même si vous yi fi nekk les stars comme ça leur vie privée n'est pas si privée que ça wax dëgg yàlla leur vie privée n'est pas si privée que ça mais quand même il y a le minimum de respect am na foo xam ne reporter waru fa dugg ak mbër mi mbër mi sport moo tax nga xam ko lamb moo tax nga xam ko boo koy poser ay question poser ko ay question ci lamb et ça s'arrête là poser ko ay question ci carrière ça s'arrête là bu dugg ci vie privée nit

politique bu ñu war a teg pour delloo leen ci nit ñi pour ñu amaat seen place ci société bi dafay jafe lool lool lool lool parce que ñooñu day mel ni tey ñàkk nañ leen ci suñu jeunesse suñu génération day ñoo xam ne presque ñàkk nañ leen léegi ñun ñi nga xam ne dañoo créer suñu chaîne nekk ci di ci kocc koccal yenn promoteurs yi da ngeen ñoo waroon accompagner da ngeen ñoo waroon accorder le maximum de respect da ngeen ñoo waroon encourager ci ci ci ci côté ba ñuy yëngu ci domaine bi ñu nekk di ci yëngu da ngeen ñoo waroon encourager parce que nous, on n'est pas encore perdu suñu nos générations, na ñu xamné ne ñak nañ nañ ci ndox mi ñi ñi basculé nañu ci di dugg ci lo xamné seen yoon ci di c'est pas honorable c'est pas respectable donc ñi nga xamné dañuy prendre presse am open presse am face à face fu am ñu dem fu au nom de quoi au nom de quoi gaa amna ci lamb ñu xamné duñ ay licence ne promoteur mais ce ne sont pas des promoteurs amna ñu xamné tour ne outil lamb il faudra ñu koy wax muy leer amna ñu xamné ne lañ ci ñoñu buñ duggé ci lamb di xex presse bi presse bi dañ leen wara ak fi journée par par saison amna ci ñoo xamne buñu bu ñu tëggee grand combat bi sax ba jour ji doo xam kan moy béré grand combat bi té pourtant buñu taxawé yor ay toog yi wëkk yi xaw protocole bi par par là presse bi dama né dakh dàq len sama lamb quelque chose de temps ay ñoo xamne man je veux même pas parler wa bëgguma sax wax yenn yenn wax yi mais ñu c'est pas des promoteurs ki ci muju moy ci organiser euh demba bëgguma sax tuddu turam bëgguma sax tuddu turam ci organiser demba Waouh des rek qui organisé le dimanche dimanche 26 dimanche 26 novembre 2023 qui organisé à l'arène nationale Nous duñu ay promoteur fay n'est je ne pas quoi c'est pas des promoteurs ay nit la ñoo qui ne dañuy de tur ci respectez wuñu presse bi vous wuñu presse bi presse bi tout tranquille laissez say mais ne nga nek fu persécuté presse bi di di tek ay ay ay yu yu kenn mënta comprendre c'est pas intéressant sa génération ngay ngay ngay sacrifier té bo len taxawé ci média yi di wax wax ju rafet boo tuddee bo len tuddee ni drapeau ne diw euh, limuy def ci jeunesse bi motax ñu fonk ko ok oh, c'est pas vrai li ngeen di wax ak li ngeen di def gëmu len ko c'est pas la même chose encore une fois respecté len presse bi sama gars presse bi ñu ngi liggé liggé bu am solo ci làmb di delloowaat njukkal ñëpp ah. encore une fois dama koy waxat man awma jotu bañ nit man presse bi nit momay xol xool bañ ma nit momay xol jappal ma en wala dima def yenn mais man j'ai pas le temps su ne nii le temps ni l'envie amna na ñoo xam ne sama tur ak ku len ray lañu yemale man su ma wax ci yow lu baax damay tok jàkkaaroo sama caméra sédel la lu baax avancer ci lenen awma ma jotu bañ ne ne nii le temps ni l'envie encore une fois pour muy clair mais presse bi seen wàllu bop le problème mooy dañoo wul presse bi dañuy yakanté presse bi dañuy njëkkante dañuy yàqalante ci seen biir té yoyu amul solo ku mën du siis ku xam du soxor seentu asamaan jarul buuxante sama gars yi àdduna yàllaa ko moom mbir mi nay yaatu nañu bëggante ci sunu biir nañu yéenante lu baax ci sunu biir nañu lu baax sunu biir moo gën yàqante bi defante bi amul solo et ça ne mène à gi mooy yokku rek nii nii nii nii nii yabel gi mooy gën a yokku rek ñu naan nu mu demee noonu fekk demewul nenn ñun ñoo ko def suñu bopp